اليمين ndokkeel itam ci sunu bis bu tedd bi nga xam ne ci lañu nekk ñu di ko defee fii ci Louga ci pàkk bu barkeel bii di kër Mamadou Binta muy bis boo xam ne nii dañ fiy daje at mu ne ngir di ñaanal sunuy maam di ñaanal itam sunuy wayjur waaye di dundal itam bokk gi nga xam ne moom lañu sunu boroom boole loolu yépp ñu di ko def ci kilifteefu sëriñ muudu aaleloo mi nga xam ne moo nekk ci njabootuk alaaji muhammadu binta ak mbooleem rakkam yu jigéen yi te buñ ci tuddee sëriñ daamloo ca daqaar mel na ne dana yóbbaale ñépp waaye ak mbooleem rakkam yu jigéen yi nga xam ne buñ ci tuddee sunu jur soxna caaraloo dana yóbbaale rakkam yépp waaye itam ñu ànd ko ak mbooleem doomi kër Madu Binta yépp yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew danañ am waxtaan woo xam ne waxtaan wu ama am solo la Serigne mbay ja ak ñi nga xam ne ñoom la séqal waxtaan wi danañ jox Serigne Mbaye Dia mu présenté leen ganam ñi nga xam ne ñoom la séqal taabal ji ngir ñu war a def waxtaan wi bu noppee ñu door leen a tënkal programme bi ni nga xam ne moom lay doxe kon Serigne Maam Cheikh bismillah bismillahi rahmani rahim laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilqaqi latadxulanna almasjida alqarama in saa allahu aminin muxalliqiina ru'uusakum wa muqassiriina laa taxaafuun fa'alima maa lam ta'lamuu faja'ala min duuni daalika fatqan qariiba ñu ngi lay sant bu baax a baax kon di ñu jox kàddu gi Serigne Mbaye Dia mu présenté leen ñi nga xam ne ñoom lay seqal waxtaan wi ak kenn ku ci nekk thème bi nga xam ne moom lañ ko jox kon sëriñ mbay bismillah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ndokkeel ci bis bi eh, di leen xamal ni li ñu fi dajale tey fii ci taabal ji mooy ñu waxtaane ñetti tomb yu am solo <coughs> ak suñ ñetti gan yu tedd yi tomb bu njëkk bi mi ngi wax ci alquran wala boog cosaanal kër Madou ak daara ji ak njariñal alquran ji nga xam ne si ku tudd Mame Madou Binta da nga tudd alquran da nga tudd daara da nga tudd alquran te comme ni ko Cheikh Lo waxe woon sànq barab bii ñu toog di ci di ci di ci mandarga di ci misaal nga xam ni moom mooy daara ji nga xam ne si moom la naal fas na ko defar ba mu àgg ngir ñu di ci dugal sunuy njaboot ñu di ci jàng alxuraan ak seen diine kon loolu am na ab tomb tomb la boo xam ne si danañ ko wax danañ ko jox sëriñ Maxtaar Diop mu waxtaanal ñu ci am na sunu beneen jarbaat sëriñ Babacar Fall moom itam dana waxtaan ci jokk ak bokk ndax ku tudd daje famille da nga tudd jokk ak bokk ñetteelu tomb bi moom itam mooy wax ci dimbalante moom itam muy ab point bu am solo Hamza Duguay moom moo ñu ci waxtaanal moo ñu waxtaanal ci jokk ak bokk ñoo ngi ndokkeel sëñ Fallou Lo bu Koki di ko jox wàcci waayam ak si na léegi léegi danañu waxal ci euh, dimbalante dimbalante ci biirug mbokk am solo gum am solo ak yitte ju lislaam jox kon muy ñetti tomb yoo xam ne si moom lañu fas yéenee waxtaane ak suñu gan yi kon ñu jox kàddu gi sëñ Maxtaar bisimilah kàddu gàngo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax di leen baalu xaq te di leen baalu xaq di fas yéenee waxtaan ci li nga xam ne ñoo ko bokk muy ndaje mi nga xam ne moom lañ fi yàlla boole ñun ñëpp léegi nag waxtu wi dafa xat te diggante bi dafa xaw a gàtt moo tax dañuy daal di sóobu ci waxtaan wi li nu fi indi itam mooy ndaje pour maam Madou Binta maam Madou Binta buñ koy wax alquran moo tax ndax alquran la daan jëfandikoo ba agsi fii mu agsi léegi boo xoolee ca cosaan la mu ngi tàmbalee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko sunu borom wàccee alquran digal ko ko pour mu jàng jàngal ko ko pour mu tasaare ko ci jullit yi yépp kon day farata ci jullit bu ne mu xam ko jàng ko ndax soo ko jàngul tey jii su fekkee ne dangaa bëgg a julli yow te xamoo dara ci alxuraan nooy jullee feeg mënoo kon il nga jàng alquran loolee moo waral mu jóge ci yonente bi tasaaroo ci sahaaba yi dem ci nit ñu baax ñépp ba agsi fii mu agsi mag ñooñee jóge woon fa ñoom itam xam li nekk ci alquran ñu daan ko jëfe topp ko topp ko topp ko ba mësuñu ko bàyyi def ko lépp muy seen yitte ñu nekk ci sax ci lool di ko jëfandikoo di ko jëfandi di ko digal seen njaboot ak ñi leen yàlla jox ñu leen koy xamal ba agsi fii mu agsi nga xam ne moo seen koo xam ne nii tey jii ñu ngi koy fàttaliku koo xam ne lu mu gàtt-gàtt dem na ñaat téeméeri at ñu koy fàttaliku ak lu teg wax dëgg yàlla xamal ne alquran rek moo man loola li nga xam ne moom la daan jëfandikoo muy alquran alquran jooje moom lañ fas yéene waxtaane fii ak ni nga xam ne ñoom noonu lañ ko fonke woon ba agsi fii ci jamono ji nga xam ne ñun fi lañ toll ñun itam nan lañ war a taxawee pour fonk ko ku gën koo gën dundal loolu moom lañ bëgg a waxtaane loolu nag liy waxtaan ji mooy moom bi nga xamee ne yàlla dogal na muy nituk alxuraan te ñëpp ñu ko xam ci alxuraan lañ ko xamee alxuraan joojee mu daan jàngale ci kër Madu Binta sosoon ka fa alxuraan jooje moo continué ba tey jii Moustapha yi daara jooju moo continué ba tey jii Moustapha yi mi ngi fi ba bis bi nga xam ne moom lan sumb tey jii nga xam ne fii leen sumb barab bi muy barab bii nga xam ne fi leen koy defee fii daaree alquran lan fi bëgg a def bëgg koo taxawe léegi nag liñ ci mën a def mooy ñun ñëpp ñu bokk ànd jàpp ji te xam ne alquran képp ku ko taxawal mooy li gën ci kaw suuf ndax sunu borom tabaraka wa taala day wax ne wallazina yumassikuuna bilkitaabi wa aqaamu salaat inna la nudiu ajra almuslihin maanaam képp koo xam ne nii jàpp nga ci téereb yàlla bi sunu borom tabaaraka wa taala di taxawal julli juróom yi kooku sunu borom du ko neenal te dana ko fay aw yiw waxaat ne inna hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashir almumin wa yubashir almuminina alladina yacmaluuna alsalihati anna lahum ajran anna lahum ajrun kabir wa anna alladina waxaat ne inna hada alquran yahdi lillati hiya aqoom wa yubashir almuminina allatina yacmaluuna saalihat anna lahum ajran kabir loolee képp koo xam ne yaa ngi koy dundal taxawu alquran sunu borom dana la boole ci ñooñu yàlla na ci sunu borom boole kon nag ñun ñëpp war na noo fet li sunu taxawaay léegi nag ñin mën a def ñun ñëpp nag mooy ñu futteeku am yéene pas-pas bi nga xam ne moom la mag ñi amoon ñu continuer ko jàpp ko bu dëgër a dëgër li ñu koy dëgëre nag mooy dundal alquran dundal alquran nag moo waral ndaje yii ñu koy daj ñu koy def ndax lépp lu ñuy woote te du alquran yaakaar naa loole leneen la loo xam ne nii maanaam euh, leneen du suñu warugar képp kuy ab jullit lépp looy ndamoo lu lu mën di doon rek alquran la war a doon waaye nag mën nañoo fàttaliku mag ñaat seen pas-pas bi nu amoon pas-pasu alquran bi bin amoon ba agsi fii lan moo leen ko mayoon ndax ñoom bi nga xamee ne dañ daan nekk ci alxuraan dañ daan nangoo wéet jamono joojee dañ daan def fu man di nekk itam soo xamee ne dëkk ba dem na ba wër leen sax dañ daan sanc di toxu di dem ci àll boo xam ne kenn nekku fa ñu si fa sanc di fa jàngale alxuraan ndax alquran loolu la baaxoo def ba ñoom daanal yare ay nit ñoo xam ne sax maanaam fi ñu leen di yare bu ñu leen fa yaree ci cosaan la nga xam ne wéet la ba dëkk ba dem ba fekk leen fa ba xumbutim fekk na nit ñoom def nañ leen bëggoon ci alxuraan ba noppi kenn mën leen a soppi loolee mag ñi dañ ko daan def ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax la ci des itam mooy pas-pas ñoom ban amoon ci yar ñu itam war nañ koy bàyyi xel di ko teg suñ kanam di ko fas yéenee jëfe ba liñ bëgg ci alxuraan ñun ñi ñu koy def ba defal ci sunu njaboot ba nga xam ne ëllëg si biir ñu itam buñ fi jógee pas-pas ba mag ñi amoon ñu ko daan continuer ñeneen ñii ñëwaat suñu gannaaw tam man koo continuer waat ndax alquran ci boppam dafa nekk loo xam ne nii ku ciy dugg ku ne war ngaa am pas-pas bu rëy rëy rëy ak yéene ju rëy rëy rëy ndax ki nga xam ne maanaam mooy jël euh, doomam andi ko ci ab sëriñub daara di ko ko jox kookee kóolute gi muy am ci moom alquran jaa tax mu andi ko fa ba tax na kon ñun ñëpp war na ku ne fedd li sax laxasaay di jéem a dundalaat daara gën koo dekkal gën koo jox euh, wàccuwaayam ba bi nga xam ne moom la yàlloo ñun ñëpp war nañ cee delluwaat ndax alquran dafa nekk loo xam ne nii lu yéeme yéeme la ba tey ne inna allazina amanu wa amilu salihaati inna la nudiu ajra man ahsana amala ñi nga xam ne danoo dañuy jëf te gëm tey jëf-jëf ji yiw ñooñee suñu borom di leen neenal te dana leen jox yool bu màgg bu rafet kon nag alquran maanaam li ci wàcc ci ay aaya li ci wàcc ci lépp loo xam njariñ la ñu war koo jariñoo te itam li nu koy may mooy ñun ñëpp ñu soob wàcc alquran fedd li ko wàcc alquran di dundalaat alquran jéem a taxaw ci taxawaayu alquran kenn ku ne sa yitte li nga bëgg mu defaru ci àdduna li la koy mën a may ñuy delluwaat ci alxuraan rek jëfandikoo alxuraan tey xool atte yi nga xam ne sunu borom teg na ko ci alxuraan ñu fex si yéen jee dox loolee dal ci la mag ñi nekkoon ci la mag ñi saxoon ci leen di continuer te képp ku bëgg lu baax itam ci loolu ngay continuer alxuraan moom taxawu ko moo war ñëpp kon nag fu waay man di nekk na ko bàyyi xel daara ji ñu ngi koy ñu ngi koy soññee at yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy soññee ren jii ngeen gis lii lépp lu yokkuwaat ci liggéey bi la buñ buñ weesoo ci ndaje met incha allah day gën di waat ba daara ji incha allah fas ngeen yéene mu jëm ñu jëmmal ko suñ kemtalaay kàttan nin ko mane incha allah kon nag ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala dolli ñu ay xéewal defal nu barke defal nu sutura defal nu taraanga defal nu ak yokkute defal nu li bëgg lépp ba suñ daara ji taxaw ak yeneen daara ak yeneen daara ak yeneen daara ñoo ngi ñaan ñëpp di ko di ko di ko sàkku ci askan wi yëpp rek incha wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye dañ fee am léegi sunu mbokk di sunu kilifa di sëriñ Fallou jóge ba kokki mu teewal fii alaaji Maxtaar Naar kenn ku ci nekk xam diggante daaray kokki ak kër bint Binta waaye xam nañ ne itam tey jii moo nekk ndajem waa bayax te sëriñ Fallou mi ngi may tooñ sànq naan ma man bayax laa dëkk kon xam nañ ne ku ko gisul woon itam danga xam ne Bayax ak Kër Madi Binta xëy na lii day lu munta ñàkk waaye bu doon lu ñu gënal bis yi day wuute ndax kenn ku ci nekk xam nañ ne bokk gi genn la ginnaaw nag euh, Kër Madu day tey Bayax itam di tey te Serigne Fallou cofeel ku Serigne Maxtaar am ci Kër Madi Binta moo tax mu ne ko nanga ma njëkk a jaaral Kër Madu Binta bi mu dikkee itam àndaale ndimbalu ama am solo kon di jox kàddu gi Serigne Fallou Lo mu jottali kàddu yónneen yi nga xam ne moom la ko Serigne Makhtar naarloo loo yónni kenn ku nekk war naa góor góorgóorlu ci daara war naa góor góorgóorlu ci diine waaye ku sant loo yaa ci raw ndax yaakaar naa ne suñu maam bi muy ñëw Louga am na ñu fi fekkoon ñu sant Cissé fekkoon na fi waa Jéemeen fekkoon na fi waa Daara kàdd fekkoon na fi waa ndimme fekkoon na fi ñee sant jaw waaye gannaaw yàlla ak barkeb jàng moo tax ñu naan Louga di ko santale loo kon nag képp koo xam ne kii da bokk ci askan woowu ak lu la ci boole ak lu mu sori sori am na taxawaay boo war a taxaw ci wàllu diine te suñu wax diine daara moo ci jiitu ndax su daara amul fu ñuy jànge diine duutu am fu ñuy xamee lan lañu ñu diine wax duutu am kon kan ma war a sobental daara waaye xawma kan la war a doon waaye ki nga xam ne kii daa askanoo ci askan woowu moom kooku moom alalam ak léppam ci daara la ko war a def ndax lu am daara ko ko jox nu ñëpp a ci yam teraanga ju ci waaye am jum mën a doon mu sori mu jege daara moo la ko jox su woon ak daara doo ko am su woon ak alquran doo ko am kon nag jërëjëf waa kër sëñ Modou euh, waa kër Modou Binta man yaakaar naa ni am na luy tolloog ñaari at ba ñetti at yu ma fi jëkkoon yu ma waxoon ak yéen waaye kenn ku nekk ku bi dëkk kenn ku nekk dana am mbégte ak kontaante ci lii nga xam ne nii moom la waa kër Modou Binta taxawal ndax am ndaje suñ koy def ay at ñaari at ñetti at te mënuñoo wane dara benn résultat loola ndaje ma bako moo gën bako moo gën loolu nag dafa mel ne waa kër Minute Binta dalu leen ndax ku ñëw ci barab bii kenn ku nekk dana am loo yëg dana am loo gis dana xam ne ñii ñoom ñu ngi dox te li leen yitteel tamit xam nañ ko te jëm xam nañ moo tax wax ji man lu gàtt lay doon wax ji sama mbokk jigéen ñii laa koy jëmale sama mbokk jigéen ñii laa koy jëmale waaw waaw bisimilah sama mbokk jigéen ñi laa koy jëmale ndax sama yaakaar ci ñoom la ëppe sama yaakaar ci jigéen ñi la ëppe ndax lépp loo xam ne nii dañ koy def ci aw yiw rek ci réew mi foo demee soo demee su góor defee benn jigéen def na fukk xawma man réew day waaye su fekkee ne Sénégal la jigéen ñi li ñuy def ci lu baax góor ñi defuñu asaka ja foo fekk lu ñuy woote lu baax rek ñoo te jiitu seen alal moo cee jiitu Seydina euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dafa am benn bis ab xare bu mu doon woote ba mu wootee mu waar ñëpp na leen nag ñu leen ñëw def ci Abdourahmaan ñëpp andi Abdourahmaan ibn Awf andi Abdourahmaan ibn Awf ba mu andee la andi yonent bi da koo laaj ne ko yaa Abdourahmaan lan nga andi ak lan nga fa ba mu ne ko man de lépp loo xam ne yoroon naa ko ci alal def naa ko ñeenti xaaj ñett ya fa bàyyi benn bi laa andi ñëpp ñëw ko naw Abdourahmaan ibn Awf nees kii si Omar ibn al-Khattab dikk ak ab yanam mu ne ko yaa Omar lan nga fa bàyyi ak lan nga andi mu ne ko lépp lu nekkoon ci kër ga dama koo xaaj ñaari xaaj bàyyil fa benn njaboot ba andi benn bi kenn ku nekk ci noonu kuñ ci waxoon li sa poos xaaj ko rek andi ko rek doo ko def ñu ne ah Omar bi dalim def kenn mosu koo def ndekete booba jàmbaar ji dafa dëkkil Abu Bakrin Siddiq daal di ñëw yonte bi sallallahu alayhi sallam ne ko yaa Ababakar lan nga andi ci yoonu yàlla wi ak lan nga fa ba mu ne lépp lu nekkoon ci kër ga laa bugg andi mu ne ko lan nga bàyyi njaboot mu ne ko yàlla akub yonentam waaye abu bakrin moomu moom moo toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp toog abu bakrin mbokk ci ñu mujj dikk ba mu dikkee yonent bi sallallahu alayhi ko yaa aba bakar seydina de ma ngi noonu nee na ma ngi lay jottali sa nuyooy borom yëmul ca loolu seydina abu moom la yonent toog ak moom de ko yéen ñëpp ñuy jullit ñëpp suñ boole woon seen gëm teg ko ci balance teg gëmuk abu bakarin ci balance gëmuk abu bakarin mooy wat gëmu jullit ñëpp moom it mooy ki toog yonte bi sallallahu alayhi wasallam yonte bi sallallahu lim fukki nit jiital ko ca na ko yow Abaa Bakar yow Omar yow Ousmane yow Ali yow diw yow Zubayr ba mu lim ba muy fukk yéen ñëpp àjjana ngeen jëm Ousmane ibn Affan waaye Aboubacar moom alalam da koo liggéey ci da koo def ci lislaam waaye am na beneen jàmbaar koo xam ne kii kenn moom muy Xadijatu di soxna si yonent bi sallallahu alayhi sallam amoon alal amoon askan amoon judd alalam jëpp mu def ko ci lislaam dimbalee ko lislaam ba lislaam taxaw kon jigéen yàgg naa def jaloore ci lislaam te it ki nga xam ne kii moom la deretam ci njëkk a tuur deretam rey ko muy Sumayya ngir lislaam jigéen la kon jigéen yàgg naa def ci lislaam Seydina Ousmane it day def di def di def di def ba yàgg yonte bi salaa sallam maa darra Ousmane maa faala baada bis na ki tey Seydina Ousmane mii day amul lu muy mën a defat lu koy tee dugg àjjana kon nag mbokk yi surtout yéen jigéen ñi laay waxal waxuma ak ñi daare jii nga xam daare alquran la kenn mënu cee def jàng mënuñoo jàng ci kaw suuf lu gën li ñuy def fii kenn mënut a def ci kaw suuf lu gën li ñuy def fi tel bis mu nekk ñu ngi def ci xel yi def ci lépp kon dama leen ndax góor ñi moom li la ñuy teel mooy seen kër yi tabax nañ ko ba karale ko ba karale bitti ba waaye diine moom duñ ci def tus fuñ toll nag dañuy jàmbat naan ordinance kayitu ndox ceeb jeex na may leen da ngeen ci yàgg nag ndax lii diine da ngeen koo jiitalul njaboot gi ngeen jiital seen diine kon dañ leen di ñaan te yàlla tax képp koo xam na kii bëgg nga ëllëg fukk ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Abu Bakrin ak Ousmane ñu def ba Ousmane def ba yonti na maa dara Ousmane maa baax maa li bis nekk tey Ousmane amul lu muy ma def du koy téye dugg àjjana wax tamit ne saydatuna Khadija daraja ya muy am ëllëg képp ku ci bëgg kenn ku nekk yëkkatil sa dërëm nga indi ko fii ñu def ko ci daara ji Alioune Badara Lo mu mo joxe ñaari junni noonu nag bi ñuy indi li ñu indi noonu waa kokki jox nañ ko ñii ci taabal bi kon yéen ñëpp ñëw leen yéen jigéen laay waxal góor ñi moom waxuma ak ñoom yaakaar ji fii laa koy ëppee waaye yaakaaruma ko ci ñi loolu nag wane wul na bu yëngatu yëngatu leen waaw ñëw leen man sama liggéey ci daara man su ma demee yalwaanal ko laay def góor a waay jërëjëf loolu laa gis andil ma kaala jërëjëf waaw ah, jërëjëf Fall ah loolu ah Soda jërëjëfati andi andi kaala andi kaala gi sa kaala gi daa ndaw seex toppal fële kaala gu rëy laa bëgg ah, na dem ci suuf waaw ah, koor kii de moom bokku ci góor ñi may wax waaw def ci téel ana ana ana gàdduloo ma fi gisoon léegi gàdd dikkal Alioune dikk na ana gàdd gàdd ñëwal gàdd ñëwal ku nu jox ciment it bëgg nañ ku nu jox fer bëgg nañ ku jox béton bëgg nañ daara ji daal lañ bëgg mu taxaw daara ji maam Modou Binte lañ bëgg mu taxaw daara ji moo nu yitteel moom lañ bëgg mu taxaw andi leen li ngeen ci def def te yàlla tax Modou dikkal dikk dikk leen maam Samba dikkileen leen kenn bu mucc yéen ñëpp a ci bàyyiwuñ kenn yéen ñëpp dikk leen ñëw leen ñëw leen def ci yàlla tax def leen te yàlla tax gis ngeen ci ciment bi ñëw leen ciment bi say waaw waaw kumba waay jërëjëf ñëw leen ci ciment bi ñëw leen ci ciment bi gàdd gisaguma de gàdd gisaguma de koo ko jox Basiiru ñëwal ak góor ñu ñëw nañ waaw kon baax na ndànk ndànk gàdd joxe na kon waaw kon waaw jërëjëf lii daal laa xam ñëw leen ciment la bu jëm ci daara ji daa joxe dara waaw gàdd joxe woon na junni waaw waaw waaw waaw waaw jërëjëf waaw waaw ci lu wér dégg nga loo ci lu ko raw a ci jërëjëf waaye jële dikk leen góor ñi jigéen ñi rek ay dikk moo tax li may wax toujours yawmal xiyaam góor ñi day jigéen ñi day dugg àjjana ba ngoon ba tàkku saani suuf ñu xool ba xam góor ñi danañ dugg wala duñ dugg ah moo nekk di ndax alal yàlla li mu wax lu leer la ci alquran maanaam àddina koo bëgg ku nekk day jaay alal ad alal àddina ku bëgg ku nekk day jaay ku bëgg ku nekk da ngay jënd te lu ñuy def ci lu baax jigéen ñooy jënd góor ñi duñ jënd kon kay ñooy dugg àddina ba takkusaan jot ngeen doog a kon baax na waaw léegi nag euh, man euh, mbay maa ngi jeexal wax ji li ma lay wax li ma leen di wax ma euh, sëñ maam Samba li may li may wax daal lenn la sëñ ma saxiir di am na lu daan wax daara xiif du ko tas mar du tas rafle du ko tas tumuranke du ko tas ñàkk jàng rek mooy li mën a tas daara kon nag da ngeen yokk a lu te nekk ci mbir mi ku leen dimbali waaw jërëjëf waaw nee nañ góor ñëw nañ waaw góor ñi kon ñu danañ dugg àjjana ci yor yore ma lu nit am xooluma lu nit def xooluma lu nit man nee na Ahmad Sakhir daal lu mu am jël lu mu ñàkk muñ nam tamit rek nam mën a doxe rek lay doxe kenn mënu koo xëcc ci mu teet doxinu kenn wala roy ci keneen wala diw dafa am lii wala topp toogu ndoo ko wala nangam lim man rek te tolloog moom rek lay doxee lu gëstuwul loolu nag mooy li am solo daare ji moom dana taxaw incha allah dana taxaw dana taxaw dana taxaw te kenn du ko mën a taxaw mën nu ko taxaw kon ngeen baal ma àq nag dama leen wax nag ne leen man bayax laa dëkk te bayax dañoo xew la man damay daal dem léegi nag am na ñoo xam ne nii dañuy jëf te duñu wax ku am ciment booy joxe ñëwal ci ñoom nga wax leen ku am fer booy joxe ñëwal ci ñoom nga wax leen ku am béton joxe ñëwal ci ñoom nga wax leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tomb yooyu mooy yi nga xam ne si sëñ Matar jot na ko fee laal muy tomb muy tomb bu am solo ci alquran ak waa alquran ak ñuy jëfal alquran sëñ Fall looyu itam bi mu ñëwee fa tabarakallah soññee na ci daara ji ah, nit ñi itam yëngatu nañ def nañ ci daara ji yàlla yàlla fay leen